jël décision ne ñu wax dañuy bàyyi ba weeru koor bi jàll bu weer bi jeexee parce ñu lu lu ñu gàtt gàtt àll bi am nañu war ma am nañu yar am nañu teggin te ñoo yàq yabuñu sénégalais yi yàq bu toll ci di ci ñu tënkoon ñu nag moom mooy ànd ci kilifa yooyu waxtaan fépp fu ñu dem bu fa mayee ñaari junni moom bu dee ay nitam lañ moom mu jël junni yeeg ñaar téeméer ñun ñu jël ñeent ñeent quatre mille francs mooy soixante quarante li ngay def booy wuti sponsor yooyu loolu waxtaan nañ ko ñu ne moom bu fekkente ne suñuy nit lañ vice versa ñun ñoo koy ëppale moom mu jël ci nekk mais fépp ñoo fay am kon defe naa balaa ñuy jóge Sénégal fépp fu ñu waroon a dem wuti fa xaalis wala wuti fa dara moom artiste dem na fa jëli fa xaalis xam nañ li ñu fa li fa jël xam nañ li ko fa xam nañ naka la demee léegi nag su fekkante ne mbir mi dañ ko tënk ci mu am lu mu war a def moom ñun ñu am lu ñu war a def su fekkante ne moom li mu war a def defe ko ñun am nañu sañ-sañu li ñu war a def ñu bañ koo def kon loolu dafa jaral leeral ba mu leer ci Sénégal yi kàddu yeneen yi ñuy dëkk tamit mooy ñun senegal sénégalais Sénégal la ñu juddoo Sénégal la ñu yoroo am fi soxna am fi ay doom am fi njaboot. am fi ay xarit am fi ay ñu ñu bëgg ak ñu ñu bañ kon pour ñi ñu bañ suñuy noonu day jar ñu leeral lii mu leer pour ñi ñu bëgg ak suñuy soppe aussi day jar ñu leeral ko ba ñoom ci seen bopp naxasal du am ci xelu nit ñi bu ñu jógee ci lii ñu defal artiste bi dañoo amoon yéene comme ni ko Xaadim waxee tëggal ñeneen lépp luñ ko wax dara bi ci dëgg benn bi ñu njëkk a nga xam ne moo gën a terre mooy xam nañ ne képp ku nekk ci événement événementiel xam na ne le producteur s'engage à prendre à charge la totalité des charges yi liées ak artiste doomu aadama boo ko jëlee bërëb yóbbu ko bërëb li njëkk mooy nga warloog moom li koy jëlee ci bërëb bi yóbbu ko bërëb bële d'un point A à un point su demee nga wutal ko fu mu nekk fu muy dal soo ko wutalee fu mu nekk fu muy dal ba pare wutal ko lu muy lekk moom ñi mu àndal yéen avion bi première classe de ñu wut ko date bi ci mooy le toog na ci télé bi nee na moom moo fayal boppam billet avion du dëgg parce que bu ñu ko jëlalee 34 billets avion moom ñi mu àndal ñëpp ñu ki jël loolu ci nombre bi ki jël bi mu toogoon di wax ñi fa jóge ñëpp ñëw Bercy ñu ñoo fay seen billet ñi fa jóge ñëpp ñëw Bercy ñu ñoo leen dalal fu ñu fu ñuy fanaan ñu ñoo ko fay kon billet bi. moom bu ñu ko avion wax ko ban bés ngay dem ak ñi ngay àndal mu ne demuma ci avion bi avion Air France daañu demee bu bii bi di jar deux millions ñun fay ko defe naa ne ñàkk fay te mënut a wees koo foofu ñu koy fayal biir buy jar deux millions ko biir ba kon su bëggee wut beneen bii avion dem Air France mooy fayal boppam bii avion bi ñu eggee bitim réew bari dafa am benn hôtel bu ñuy woowee ñu bari ci ay àndandoom xam nañ ko Aziz Ndiaye xam na fi ayat Baye Ndiaye xam na fi ayat ak keneen ak keneen mu ne daluma ayat Foucax lay kon bu dalee Foucax moom moo koy fayal ba ndax ñun fi ko warloo woon fi ñu digale woon ak moom pour yóbbu ko fa def nañ donc ni ñu fayee hôtel boobu ñun xam nañ ko ki ko fay xam nañ ko xëy na du ay teggin ñu koy jub parce que comme fi nekk nii wax na. xale yi dañuy faral di fooye lu am solo mooy ku wax feeñ moom wax moo tax day feeñ ku wax feeñ waxu dëgg la wax kon day feeñ loolu moo waral tey ñu war a toog nii leeral leen ci biir télé bi mu toogoon nee na ci moom télé boobu il a mis beaucoup d'argent ci li réussite bu bés muy beneen point ñu indiwaat leeral bu wane ne loolu du dëgg ci moom télé bi mu nekkoon di wax. tur bi mu tudd ne kooku dugal na xaalisam ci biir Bercy dugalul dara ci Bercy dara les droits de captation pour cent de la billetterie Bercy droits de captation yooyu dix-huit mille euros man di jàpp ak Xaadim ki moom télé boobu ñuy waxtaan ñu ne ko lii nga war image bi Bercy ñu xaatim contrat boo xam ne dañ ko ne parce que bu ñu ko defee direct sénégalais yi nekk Paris ñu ñëw dañuy toog seen biir kër seetaan te loolu expérience moo tax ñu koy wax organiser nañu Bercy combat bombardier Baboy def ko en direct ci benn télé fii sénégalais yi toog seen kër seetaan ko seen télé bañ a ñëw ci ñu saal def naa ne pour ngëbin rey sa maam boo gisatee lu ñuul da ngay daw ñun def nañu am nañu expérience bu Bercy bi ñu xaatamee contrat boobu ba pare ñu waxtaan mu ne dix-huit mille euros yi ñu xool kóllëreem ak xaalis kóllëreem ak Djidiack ñu wàññi ko ci mu def dix mille. salle bi si vingt mille trois cent places la bu dee da nga ko jël pour bi am na mu mel ci digg bi bu dee da nga ko wéer ci miir bi ñu demee dem ba mu yàgg man maa ngi foofu rek yàgg di yàgg ak xaalis nekk xool xam ne lii ñu dëgg na nii a sotti ñu jógee ci dix-huit mille ba ci quinze mille loolu mooy chose da ngay fay pénalité de chose que bi ngay jël salle bi yow yaa la woon dix-huit mille lay jël tubaab bi def aménagement wu dix-huit mille nga dem ba mu yàgg ne ko jëlatuma dix-huit mille quinze mille lay jël da ngay tàmbalee fay ay charge pénalité de chose ñu jógee quinze mille ñu dem ba mu metti ñu xool xam ne ñun suñuy biir lii ñuy jaay biir jaaxal ñu jógee quinze mille ñoom neuf mille jauge finalu Bercy neuf mille places nous n'avons pas rempli Bercy du honte ci ñun parce que yàlla dëgg la bëgg ñu wax dëgg mais challenge bi c'était de faire Bercy challenge bi ñun ci ñun c'était de le réussir parce que tout le monde peut faire Bercy, mais tout le monde le challenge pour nous, c'était de réussir Bercy. 6351 billets familiales ñu jox ko 800 ñu def 879 invitations mooy loo xam ne dañ koy maye ñu jël 243 yi teg ci loxo ne ko maye ku la neex ñun ñu jël li si des di ko wër di ko maye jox ko presse bi. artiste yi mu ñëw kenn ci nekk ñu jox la sa biir nga may sa famille may say xarit nga yëpp ñu may suñu biir ba mu jeex ñun bi ñu génnee buntu bés dañoo tase ay nit yu yor ay invitation di ko jaay kon total li nekkoon bés boo ko xaymaa da lay day toll ci sept mille sept mille deux cent trente personnes moo fa nekkoon ñun xamoon nañu ne perte nañ vingt quatre heures voire quarante huit heures avant bés pourquoi parce que dañoo may charge charge yi bëri. tubaab bi woo ñu ñëw ñun ñu toog bi mën nañu wàññi leen charge yi wàññi ngeen charge bi ba neuf mille mais écran géant bi nekk ci ginnaaw dix huit mille euros lay jar lumière yi la li ci nekk yëpp ëpp na quarante trois mille euros les charges techniques son bi bi ëpp na soixante neuf mille six cent euros loolu yëpp di ay charge ay charge nettoyage ñëwagul CRS bi ñëwagul police bi ñëwul sapeur pompier ñëwul. kon xaalis boobu muy toog ci tere bi nekk waa ji il a beaucoup d' ci Bercy bi dañu bëgg a xam xaalis boobu mu leeral ñu lan la ñun ñoo jël suñu événement indi ko ci foofu benn structure buy def euh, agence de communication bu tudd d' accord ñu jox leen ko ne leen dama leen wutali ñu ay sponsor sponsor ku ngeen indi ñëpp xam nañ ci frais d' agence mësta weesu 10 pour cent wala 15 pour cent ñun 40 pour cent la ñu fay frais d' agence. mooy bi ñu indee un million un million yi moom jël na ci quatre cent mille jox ñu six cent mille kon defe naa ne ñun ñoo leen jox xaalis waaye ñoom joxuñ ñu xaalis événement bu toll ni Bercy ñu dénk la ko sa agent de nga indi ci sponsor trois millions événement bu toll ni Bercy kon ñaari mbir moo kon artiste bi mënoo ko jaay wala événement bi mënoo ko jaay parce que boo ko bëggoon jaay xewal bi dina suñu problème ak artiste bi ci biir foofu mu toogoon di bi nee na. ñëw naa yi fekk leen fa man maa leen nuyuwul woon parce que sentir ma nuyu leen defe naa ne porteur de voix le porteur de drapeau wala artiste wala képp ku am tour Sénégal référence ngay doon exemple ngay doon doom bu juddoo li koy njëkk jàngal mooy yar ak teggin ak worma yar ak teggin ak worma mi ngi tàmbalee ci nga fekk nit mu toog nga nuyu ko ci nuyu bi gën a sell di gën a yomb parce que bu fekkente ne benn fan sax ñu ñoo ko su fekkente ne benn bés sax ñaqal nañ ko ñaqal nañ ko parce que liggéeyal nañ ci lu ko defaral san xaadim wax na leen ne dañoo créé concept bi tudd Wally dans moom ville mënoon nañ koo tuddee Sénégal vision dans ma ville wala Vouzenou dans ma ville wala xaadim dans ma ville wala Jijak dans moom lañ ko tuddee concept bi yóbbu ko pour valoriser concept boobu kon ñaqal nañ ko bu dee kon li jaagu woon mooy bu ñu fekkee ci saal boobu mu am worma ak yar ak teggin bu toll ci nuyu ñu parce que ñun ñooy employé yi moom mooy suñu employé.